donc li tax nag affaire Fulbert Sambou ak DJ Badji ñor ñu bu ñu fàttale ko DJ Badji ak Fulbert Sambou Fulbert est un, un agent des renseignements généraux DJ Badji nekkoon gendarme euh, mu am sax lu mu rax ci suñu waa GIGN mooy délinquant yi nga xam ne tey euh, ñoom ñooy ñiy toj oto Ousmane Sonko ñeneen ak ñeneen donc ci biir loolu aussi am nañu ay information ci benn chauffeuru Macky Sall boo xam ne moomit dafa jiite chauffeuru le président Macky Sall moom it dafa bokk ci ñi nga xam ne non seulement recruteur de nervi la waaye aussi moom ci boppam nervi la ndax dañu doon boom nit ñi fële ci Médina voilà donc yooyu yëpp la ñu bëgg a ñëw waxtaan ak yéen tey euh, te ñuy encore continuer rek ci li nga xam ne moom mooy lancé bi ñu nekk tey nag du ñu ñëw ci maillot rouge déedéet mais kii taxaw nii ak maillot rouge ci kooku la ñu bëgg def arrêt d'image parce que c'est un homme de tenue moom lañu gis moom moo doon jox boroom maillot rouge fetal donc homme de boobu ñu ngi ci ay investigation nag ak yeneen homme de tenue yi waaye affaire DJ Badji ak Fulbert sambu bi mi ngi juddoo aussi ci ñoom homme de tenue yi ba léegi donc balaa may tàmbali dara dama leen di indil photo photo laa leen di indil parce que on na une photo voilà waa jii lañ ñu waa jii xool leen photo bu baax bi xool leen photo bi bu baax a baax a baax a baax voilà waa jii li gën a garaaw nag moom ak ki naan suñu pétrole bi ñoo bokk tur Alioune Sall la tudd Aliou Sall Aliou Sall mii nee nañu Fulbert Sambou Fulbert Sambou encore une fois renseignements généraux Fulbert Sambou waa ji daf ko doon côtoyer lu bare baree baree baree baree bare ci fan yu mujj yi nga xam ne ca lañ ko boomee ñoom Jérôme Bandiaki avec ses ñu ne waa jii nii Alioune Sall la tudd moom it c'est un renseignement général waa ji photo bii ngeen di gis nee nañu Aliou Sall la tudd et c'est un renseignement général voilà waa ji ngeen di gis Aliou Sall la tudd et c'est un renseignement général fan yi Fulbert Sambou génne àddina nee nañu bokk na ci ñi ko mujjee wax ak moom waa ji daf ko doon côtoyer lu baree baree bari ba Fulbert commencé xam nga rek nit boo nekkee nit koo xam ne da ngay yëg dara ba mu yaramam commencé am lu mu sentir mu naan ko mais yow pourquoi coûte que coûte nga bëgg ñu nekk xarit booba mi ngi jéem a ut ay firnde ci moom mi ngi koy approché di jéem a wut ay information ci ka nga xam ne moom mooy Fulbert Sambou encore une fois Fulbert Sambou waa ji Alioune Sall la tudd xool leen photo bi ngeen xàmmee ko bu baax bokk na ci ñi mujjee doon waxante ak jëflante ak Fulbert sambu ndax li tax ñu bëgg a indi lii ñaari homme de tenue la yu génn àddina te xam nañ ne Sénégal moom kenn du fa génnee àddina noonu ñun suñu gouvernement day boom xam nga loolu léegi moom loolu leer na xam nga ñun suñu gouvernement mënuñoo toog ñu ne ñu rey nit xam nga ñun suñu gouvernement mënatul ne rey nit ñoom duñ ko def ñoom mënatuñoo wax lool ndax on les a pris les mains dans le sac maintenant c'est confirmé que notre gouvernement du Sénégal c'est des tueurs yàgg nañ leen ko wax yàgg nañ leen ne Macky Sall li mu yor c'est un cartel maanaam drogue dealer yi ni ñuy fonctionner noonu la Macky Sall di fonctionné léegi nag comme leer na àdduna bi yëpp ne Macky Sall reykatu nit la moo ak gouvernement am bëgg nañoo xam suñu ñaari homme de tenue yooyu Fulbert Sambou ak Didier Badji lan moo leen dal en réalité ndax xam nañ ne géej du lekk néew loolu cuune xam na ko cuune xam na ne géej du lekk néew déggu leen li ma wax de nee nañu leen géej du lekk néew wax nañ leen ko nee nañu leen géej géej du lekk nit du lekk néew da koy génne léegi wax ñu waa ji kan la dit nu sept personnes Alioune Sall mii bëgg nañ koo xam on veut le connaître nee nañu renseignements généraux la c'est quelqu'un qui a beaucoup côtoyé Fulbert Sambou ces derniers jour duma ko accuser dara nag accuser wu ko dara dama leen koy wax je je ne l'accuse de rien du tout ndax wax dëgg yàlla comme gisuñu ko ak fetal gisuñu ko ak arme te ce qu'ils nous ont dit ils nous ont dit ils nous avec son crew ñoom ñoo ko rey ci kër Madiambal Diagne ci kër Madiambal Diagne la reyee Didier Badji ak Fulbert Sambou ndax pick-up truck bi leen rey bi jël gis nañ ko fa gis les euh, tappalekatu Fulbert Sambou yi ñoom ñoo ko rey gis nañu loolu voilà donc loolu dafa leer bëgg nañu xam waa ji kan la Alioune Sall mii il fait partie des renseignements généraux Alioune Sall mii il fait partir des renseignements généraux bëgg nañu xam kan la ngeen wax ñu ko boo leen ñu mënee wax Alioune Sall mi kan la bëgg nañ koo xam voilà jéggal leen ma yéen a ngi gis photo bi mu leer on veut le connaître c'est Alioune Sall on veut le connaître et on veut connaître ses voilà mi ngi nii voilà waa ji bëgg nañu ngeen xam ñu xam kan la bëgg nañu ko xam parce que ñun suñu gouvernement mënatuñu ne duñu ay reykatu nit ma gën a yaatal photo bi ñu xam xàmmee kanamam on veut le connaître am na lu mu xam lum ñu mën a wax bëgg nañ koo xam on veut connaître ce gars-là voilà beneen affaire bi on a aussi reçu des informations comme quoi que le colonel Mbeng colonel Mbeng laa leen mën a wax nom de famille parce que il a seulement donné le nom colonel Mbeng il dit qu'il était un promotionnaire de Didier Badji waxuma la je n'ai pas dit Fulbert Sambou Fulbert Sambou pare na ak moom ci waa ji le gars là ki ma leen woon ni Alioune Sall Alioune Sall avait des relations avec Didier Badji et il a fait tout ce qu'il pouvait pour le côtoyer ces derniers jours ba mbir mi jaaxal Didier Badji ba il s'est toujours demandé des questions léegi nag Alioune Sall boobu laa leen woon dañu bëgg a xam Alioune Sall boobu lan mooy relation am ak kan moo ko yónni ci Didier Badji parce que Didier Badji était inquiet Amin Fulbert sambu Fulbert Sambou gars yi jéggal ma Fulbert Sambou voilà Alioune Sall moom ci Fulbert Sambou la takk Alioune Sall nii renseignements généraux la te dafa jege woon Fulbert Sambou di ko côtoyer di jéem a am ay information ci moom kooku moy Alioune sal léegi ñu dem ci Didier Badji Didier Badji le colonel Mbengue a contacté sa famille une seule fois pour laaj ay information ci moom une seule fois le colonel Mbengue léegi nag comme ni ma leen ko waxee on a tout fait pour avoir un prénom ils ont tout simplement dit le colonel Meng. Combien de colonel Meng il a au Sénégal, je ne sais pas. Mais le colonel Meng a contacté la famille de Didier Badji pour avoir des informations. Il s'est identifié comme son promotionnaire. Mais il n'a jamais rappelé pour encore avoir plus d'informations. il n'a appelé qu'une seule fois. Il a, à il a envoyé un message une seule fois pour demander des informations sur Didier Badji. Ça, c'est le colonel Meng. Encore une fois, j'ai pas de photo de lui et j'ai pas un prénom de lui. Mais il s'est identifié comme le colonel Meng étant partenaire étant promotionnaire de Didier Badji. Donc nous voulons savoir ce qui est arrivé. Notre agent Fulbert Sambou et notre gendarme, agent des renseignements généraux Fulbert Sambou et le gendarme Didier Badji. Nous voulons savoir ce qui les est arrivé. Alioune Sall est celui qui a été lié à Fulbert Sambou et colonel Mbeng est celui qui a été lié à Didier Badji. Maintenant, nous voulons des enquêtes et nous voulons avoir des informations sur ces deux personnes. léegi nag loolu laay teg seen pour le moment on en reviendra avec plus d'informations sur ces deux personnes voilà